waxtaan ci mbiru li nga xamante ni moom mooy li ñu ñun jigéen ñi li ñuy doxalee ci societé bi koor geek incha allah nuñ koy préparé bon suñu premier thème nag tey ñu war ko waxtaanee ci xudwatu na maanaam suñu idole yi ñu amoon ay euh, référence yoo xamante ni moom lañu fi islam tegal nee na laqad kaan lakum fi rasulillah uswatun xasanatun liman kaana yarju llah wal yawmal axir euh, muy référence yi nga xamante ni euh, doy nañu référence te ku ci ngoy do juum ku nekk ci seen yoon di nga xamee nooy doxee ci penc mi di nga mën tamit nooy jëflanteeg nit di nga ko xam kon loolu lépp ci islam lañ ko mën a amee ci euh, suñu royukaay yi nga xamante ni moom lañu islam euh, tegal moom mooy saxaabiyaat yi radiallahu anhunna yàlla na leen yàlla gërëm ñu nekk ay jigéen ñoo xamante ne macha allah ñu jàmbaar la ba ñun jigéen ñi rek tey buñ ci royee dinañ nekk ay jigéen référence dinañ jigéen ñoo xamante ne ñun ñooy defar penc mi di defar société bi incha allah ñu war a fas yéene waxtaanee ci li nga xamante ni moom mooy ñun jigéen ñi fu ñuy teg suñu tànk ñu war a jël royukaay premièrement ci suñu yaay Khadija radiyallahu anha axawaati lu tax ñu war koo jël premièrement mooy moom dafa nekkoon koo xamante ne ku laap la ñu koy woowee at tahira te loolu laata islam di ñëw la kon loolu day wane ni même bu dul islam sa jigéen da nga war a sàmm sa bopp lu tax ñu ko doon woowee at tahira mooy suñu yaay Khadija radiyallahu anha yarama musul feeñ karawam musul feeñ da doon sol lu jot lu yiw malgré dafa nekkoon ku am xaalis nekkoon euh, koo xamante ni mi ngi ci mi ngi ci commerce bi et nga xamante ni kooku kuy luxe moom nga moom ngay jàppale moo tax moom ak lépp lu mu mënoon am rek da koo tege woon fële waaye dafa sàmmoon boppam mu nekk ñu ko doon woowee ak taahira maanaam la pur kon loolu rek comme ni ñu koy waxee référence la ci ñun ci ñun jigéen ñi ñu sàmm suñu bopp di sol lu jot di waxee wax bu wax bu jot ndax dañ ko respecté woon ba dañ koy woowee sayidatu nisa Xuraysh mooy jigéenu sang Xuraysh yi kon kooku xam ngeen ne référence la woon laata islam bi ñëw ba islam tamit mu dox ci ay jéego yu am solo Euh, mooy wane ne jigéen tamit lépp loo war a def rek islam nga waroon jiital islaam nga war a jiital ci looy def sooy wax sooy dox ci sa xaalis foo koy dugal lépp dafa war a nekk loo xamante ne dañ ko islamiser ñu dañoo war a islamiser suñu bopp jël suñu lépp teg ko ci islaam maanaam bu ñuy balaa ñuy def wala ñuy wax ñu xam lu ci charia wax lu ci islaam wax ñu jëfee ko euh, moom mooy suñu premier référence deuxième bi ñu jël suñu yaay Khadija suñu yaay Aïcha radiyallahu anha nga xamante ni moom mooy géeju xam donc jigéen dafa war a jàng mu nekk jàng nag ci bépp fànn dañoo war a jàng lépp parce que jigéen dañuy wax jàngam soriwul fii loolu erreur bu mag la warul sori ñun ñoo war a yar nit kuy yar danga war a xam boo xamul mënoo yar nit bi boo yarwul mënoo yar suñu yaay Khadija radiyallahu anha dafa nekkoon koo xamante ni euh, mën nañ ne laata appareil appareil gi mooy xam-xam gi la ko nit ñi gën a ràññee moo tax xadis yu ëpp ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko soloon mu nekkoon tamit jeune nekkoon xale kon ñun kooku rek doy nañu référence xale boo xamante ni li ci ëpp xam-xam yow yaa koy bañ yonent bi sallallahu alayhi nee dafa wax ni xudu nisfa diinakum min hadihi al xumayra jël leen seen xaaju diine gi ci ndaw see kon ndaw soosu mooy suñu yaay Aïcha radiyallahu anha ñu war a jël tamit royukaay ci suñu yaay Asma di nga xamante ni moom magu suñu yaay Aïcha la suñu yaay Asma nekkoon koo xamante ni tamit nit ku am valeur la maanaam ku ku ku digne koo xamante ni ku mën a tamit sàmm kaar waaye ku am bàmmeelu biir surtout loolu ci ñun jigéen ñi bàmmeelu biir suñu yaay euh, Asma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy dem ci gàddaay bi moom moo leen préparé seeni i bagage moo leen préparé te boobu yéeféer yi ñu mag ñi ñu ngi nekk di war ña ñi anañu euh, Aboubacar ak euh, suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu yaay Asma préparé leen seen bagage ba jël sëram xotti ko takkal leen ko ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla subhanahu wa taala denc na la benn ceinture ñaari ceinture ci aljana ñu koy wax zaatu nita xëy ni mooy kooku nga xamante ni moom kon lépp da koo dëgmaloon ci diine waaye ba ñuy dem ci xaaru xiraa moom moo leen yóbbul moo leen yóbbul ay lekk ba nga xamante ni kenn du yëg fi ñu nekk te xiif tamit du leen rey amaana bu leen yóbbul woon lekk boobu kon euh, dinañ sonn wala dina am leneen lu leen fa beneen conséquence bu leen fa mais suñu yaay suñu yaayee asma moo leen doon dimbali di leen yóbbul ay lekk te kenn yégul mu nekk secret boo xamante ni denc beneen secret bi mooy ba Abu Jahl ak mbootaay bi ñëwee mooy euh, magu Quraysh yi ñëw pour euh, kii Aboubacar ba ñu ko ñëwee laaj ko ana sa papa lu mu leen wax mu ne ko gisuma ko loolu la leen wax gisuma ko xaw ma fu mu nekk mm. ba Abu Jahl da koo mbéj dégg nee nañ jaaro bi dafa dafa naaw ba lexam bi dafa dafa doon naaj mais loolu yëpp taxul mu wax leen fu papam nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp ngir sàmm diine kon jigéen ñun diine mooy suñu première loo xamante ni moom la ñu war a di di doxee ñun diine la ñu war a à chaque fois ñun jigéen bu ñu génnee dañoo war a sentir ne islam mooy génn waaye waruñoo jël suñu bopp rek di di jël roykaay yi nga xamante ni tey moom la ñuy forcé ma dama naa dañu koy forcé parce que dañu koy tegal ci télé bi ñu xool ki nga xamante ni moo ci gën ñàkk kersa moom la ñuy tegal koo xamante ni tey moo gën a ñàkk roykaay gën a yiwadi moom la ñuy tegal yow nga def ko référence waaye luxe bi nga xamante ni moom lañ lay wan ci moom nga koy gis nga ne man su ma dundi su ma màggee nii laa a mel su ma laa bëgg a mel loolu nekkul vie réalité bi islam du loolu la ñu digal ñun jigéen boo war a defar penc mi da war a wàccee sa bopp lu bëri da ko war a bàyyi ci àdduna mooy nga dëgmal diine yar sa bopp surtout loolu ñu mën a yar nit parce que nit balaa ngay yare il faut nga yoru mënoo wax kenn tey defal lii te soo génnee def leneen tey boo génnee ni di deel jàng alxuraan te yow kaamil bi gëj nga koo laal lan lay ndur tey boo ñëwee ni ko ni ko yàlla nee na subhanahu wa taala jigéen day sol lu yow soloo lu lan ngay nduru lan lay nduru nañu waxante dëgg nañu nañu jël ñun référence suñu bopp nit ki balaa ngay nekk di wax dara na nga ko jéem a jëfee ba pare mm. ko loolu mooy xudwatu naa ñu xool nag saxaabi yaati bëri nañ كنت من تم ام سليم ام سليم رضي الله عنها موي يا يو انس ابن مالك كوكو ما شاء الله دا ديف لو ري اسلام موي لان دا فا بوغول يونتي بي تيلمون كو بو يونتي بي تودي دي نلاو سا ديغي نين دا دون جيل نياخام دي فومب يونتي بي سلام الله عليه وسلم جوغنا ام سليم لوي ديف ني مونكو داما جيل سا نياخ بي ديف كو سي سونو بارفون بي داخ مو غنا نيه imagine ko hub rasul bu mu beug yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam um salem mom mom la domam gañu mu jeukeram voyage yi mu préparer ko defal ko mu bax suul ko laataa jëkk ji di ñëw mu ne bu kenn yëg ni tax sinon ku dem voyage waroo koo nekk di ko stressé xoolal loolu diggante boobu mu am ak ak borom këram ba borom këram ñëwee laaj ko ana xale bi mu ne ko mu ngi ci mu ngi ci loxo yu wóor mu ci fu wóor ba jëkk ji préparé mu defal ko mu reer defal ko le ba mu xëyee suba si laa yaa ko xale bi mu ko ne mu ne ko yow bu fekkoon borom bi subhanahu wa bu fekkoon sa dëkkandoo tey daf laa aal dara léegi tey mu ñëwoon pour ah pour nga delloo ko ko ndax da ngay bañ delloo ko mu ne ko déedéet mu ne ko yàlla subhanahu taala mi nga xamante ne moo ñu dénkoon suñu doom kooku jëlaat na li nga xamante ne moom moom la ñu mu nekk beneen beneen référence mu nekk beneen référence te ba mu demee jëkkër ji mer lool dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko kaas yonent bi ne ko ndax seq ngeen dara ci guddi gi mu ne ko waaw mu ne ko barakallahu fi laylatikuma yal na yàlla barkeel ci seen guddi googu doom jooju sosoo ci am na 10 doom moom tamit te ñëpp ay xaafisul quran lañ mu nekk yaay yaay joo xamante fa préparé boppam yaay ju bàkkeel te Oumou Sélé bi gën na neex ci histoire am mooy que ni lan la ñaan mu nekk canan canu Oumou Sélé lan la ba ko jëkk ji ñëwee di ko di ko di ko bëgg si fekk jëkkër bu njëkkoon am borom këram gaañu na mu ne ko man de bëgg naa nga nga nga nekk sama borom parce que yow tamit nit ku baax nga waaye tamit nekkoo julit léegi mu am benn problème mooy que ni kooku ku góor ki nekkul jullit mu ne ko nekk bi nga ñàkk nekk jullit moo tax mënuma nekk sa soxna mu ne ko léegi nan laay def pour nga nekk sama soxna mu ne ko il faut nga dugg ci islam man can sa sama can mooy nga wax ashadu an laa ilaha illa allah moom mooy jigéen bi nga xamante ni canam moom mooy ashadu an laa ilaha illa allah moom mooy islam kon ñun dañoo may ay référence jigéen ñi ñuy wan nii ay ay folklore la dañuy dañuy nax suñu bopp yi la ñuy yàq mais loolu ñuy jàng noonu tamit loolu ñuy jàng ci histoire dañ ko war di jëfee waruñ ko jàng nii rek mu nekk loo xamante dañ koy jàng après ñu sànni ko fe bu ñu toogee di ko raconté amul chance dañ ko jàng di ko jëfee benn histoire boo jël ci saxaabi yaati jàngat la defar na la yow doomu aadama yow jigéen bi kon ñu war bàyyi xel bu baax euh, bu ñu jëlee tamit ci Fatima suñu yaay Fatima wala suñu kii mooy doom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Fatima tamit macha allah euh, dafa nekkoon moog borom këram muy Ali ibn Abi Talib mais amu yoon doole amu yoon doole mais toog nañ nee nañ ay jours ñu ba bañ ne ba ñu dem xaw ma Fatima liggéey am tuuti ñu commencé defar ay genre beignet yooyu ñu commencé ko lekk trois jours bu ñu toogee commencé lekk premier jour bi am na benn asir mooy koo xam ne dañ koy jàpp ci jaami indi ko kooku moo ñëw fëgg bunt bi fekk dem nañ bay lekk kooku ñëw fëgg bunt bi ne man damay yelwaanu ma lekk ñu jël ko jox ko deuxième jour bi yatim ñëw jirim ñëw ñu jox ko beneen bi miskin ñëw ñu jël jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga lu mu leen wax sallallahu alayhi wasallam sallam asafla borom bi subhanahu wa taala wacce ci ñom ay ay ay lan la leen wax wa yutaayimuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ñom bañu ñuy ñooñu bañu leen saraxé ñu commencé di leen ñaan yaa yàlla fay xam nga lu ñu leen wax inna ma nutaayimukum li wajhillah nit loy def nang koy def ngir yàlla rek ñu ne ko ñun li ñu leen jox nii yàlla rek tax ñu laa nuridu minkum jazaan wala shukura kon ñun ñun jigéen dañoo war a am suñu façon tiyaaba bu ñu war a am bëri na muy jaamu yàlla suy en tant que ay célibataire ay jeunes mais même marié bi ngay marié jaamu yàlla bi nga mën a jaamu yàlla ci loolu bëri na ci sa borom kër ci say doom société bi sa xarit bu nga nekk sa war nga jaamu yàlla ci moom sa xarit bi nga nekk nit ki nga xamante ni xamula sax boo génnee dox rek da war a xam ne jigéenu jullit génn am na koo xamante ci sa sollu jot ci sa muuraay bi nga xamante yaa ngi ko doonee ci saxaaba yaa ngi ko jëlee référence ñoom ci la gis naw la kooku tey mun na dem jëndi kol muuru jëndi ay yére yu baax changé te yow doo ci xam dara donc tiyaaba boobu yaakaar naa ni mënuñ ko mënuñu xam ñun euh, façon bi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala ko ci ay xéewal en tant que jullit mais avant tout d'abord nañu xalaat tamit fu ñu islam jëlee avant islaam lu jigéen doon dund métti woon na trop trop trop ay lëndëm la nekkoon jigéen ñii dañ ko daan suul fekk mu ngi nekk euh, borom këram bu gaañu ñu suul ko moom tamit koo xamante ni dañ koy diri ci ay fas ba mu dee koo xamante ni tey dañ koy jël di ko di ko doon comme ni ñu doon ni alal ñii di takk seen seen yaay ñii di takk seen sœurs yi borom bi subhanahu wa taala ñëw ne la xurrimat aleykum ummahatukum wa banatukum wa axawatukum ba aaya bi jeex donc islam dafa ñëw sauver honneur jigéen ñun tam dañoo war a sauver suñu bopp ci suñuy cër suñuy wax suñuy làmmiñ suñuy lépp xam naa kon ma bàyyi leen axawaat incha allah ngeen sànni si seen kàddu macha allah ya sayda kàddu yi am na solo ñi ngi fi lii ñëpp nga xamante ne ñooñu doy nañ ñu royukaay suñu borom may ñu mel ni ñoom Euh, mu amoon nag benn laaj bu ma la bëggoon laaj yaa Seyda par rapport ak weeru koor jigéen ñi ngi fi lim ñi ñëpp nga xam ne ñooy suñu ay référence ñoom ba ñuy dund suñu borom wàcce woon na weeru koor dama buggoon xam léegi ñoom nan lañ doon waajalee koor ak nañ lañ doon dundalee weeru koor gi par rapport ak société bi tey jigéen tey. macha allah soxna Zahra question bi am na solo lool léegi bu ñëwee ci li nga xamante ne comme li mu posé moom mooy jigéen naka la war a ramadan mooy weeru koor bi nga xamante ni moom mooy chahru ramadan mubarak borom bi subhanahu wa taala barkeel ko ni ñu ko war a préparé mooy ni ko jigéen ñu baax di préparé maanaam ci préparé ci sa kër sa kër gi dafa war a saf diine kër gu saf diine la war a préparé mooy lan jàng alquran tudd yàlla zikrullah tée sa làmmiñ mooy nga yar sa njaboot sa kër def ko environnement boo xamante ne environnement wu islam lay doon pas xamante ni comme par exemple ni ko suñu yenn jigéen ñi di defee mooy préparer koor goo xamante ni yow yaa ngi jënd bagage yoo xamante ni leer na ni doo ko lekkee te am na sa benn dëkkandoor boo xamante ni tey lu lu mu lu mu ndogoo amu ko wala lu mu xëddee amu ko te yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax ni mu ne nga dimbalee sa mbokk wala nga jox ko mu lu mel ni benn doomu tàndarma macha allah mu ngi noonu benn doomu tàndarma mais ñun waxuma la tàndarma mais plate table bi day fees del wala bassin bi day fees del alors que dañ ciy lekk du du mat sax xaaju xaaju kilo mburu bi wala fukki mu mburu doo ko lekk léegi sa dëkkandoo bi nga bàyyi ko muy xiif di xëddee noonu moom moo la ëpp tiyaaba waaye te mënu nga am tiyaaba bu bëri ci koor gi mooy ngay joxe ñam ci loolu la nga waroon préparer sa koor préparer naka ngay dimbalee sa sa dëkkandoo yi naka ngay dimbalee sa mbokk yi mais da gis koo xamante ne tey par exemple jeune fi boo xamante ni muy préparer kooram moom mooy day fas yéene mu ngi xalaat ne avant koor gi di ñëw war naa ci toj tëj sama koor war naa tëj sama saison nu ñu koy waxee saison bi mooy lan saison caaxaan beeg topp iblis bi da nga kon yow ubbi woon nga saison boo xamante ubbil nga iblis buntu yaa ngi ubbi ubbil iblis buntu nga war ko tëj ci ramadan gi boo paree war nga koo tijjiwaat maanaam yow yaa ngi xiir seytaane ci sa bopp boo paree nga ne seytaane moo ñu lakkal seytaane mais seytaane yaa koy xëcc ci yow kor gi na nga koy préparé naka la ko julli di préparé mooy ñu woor ci Chaabaan bi 15 jours yi dañ ko war a woor du force mais nga wor ko nga tëj sa saison nga xamanteni di nga préparer non seulement sa biir waye di nga préparer sa jëmm di nga préparer sa làmmiñ di nga préparer sa bop ci koor gi nga xamanteni bu ñëwé lu bari dang koy bàyyi mais da ngay bàyyi ba koor gi di ñëw nga nga wara dem soirée wara lu bon lu lépp nga bëkk ko résumé def ko ci koor gi est-ce que yow sa koor sax dana nangu yow du war nga war nga tiit sa bop ci euh, ci li ngay def deuxièmement bi mom mooy ñi da ngay gis ko xamanteni tay mu ngi and ak ay goor dem ci ay plage def musiba yoo xamante ni yow est-ce que bëgg nga dee fekk la ci nit ki loo bëggul dee fekk la ci bu ko def bu ko def am na loo xamante ni boo rusee boo ci rus yaa ngi làqatu bëggoo sa parent gis ko mais ana borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ni moo bind say jur moom mi nga xamante ni foo nekk mi ngi lay gis kooku ana sa ragal la ci moom loolu du loolu la war a tëjee koor mais dañoo war a préparer suñu bopp yar suñu bopp ci bëgg-bëgg yi ñu am mais yow yaa ngi préparé jënd nga ay yëre yiw baax na jënd nga ay col baax na abbaye ah, sijaar yëpp yaa ngi koy jënd mais yow ci biir koor gi nga ko bëgg a defee avant koor gi ana sa jaamu yàlla loo tàmmul avant koor mënoo ko tàmm ci biir koor koor dafa nekk benn promotion boo xamante ne dafa ñëw pour euh, loo def ci tiyaaba ñu dubleel la ko ñu ñu ñu dubleel la ko waaye bu dee bu dee da ngay tëj sa koor ci ay caaxaan ay ay mbirum seytaane loolu yaakaar naa ni beneen bàkkaar la booy sëf sa bopp waxuma la xëcc seytaane mais sa sa sa nafs nit ki dafa am lu ñuy wax nafsul lawaam ak nafsul amaara bi suu sa bakkan boo xamante ni daf lay dégal lu baax am koo xam ne daf lay dégal lu bon léegi yow ku lay dégal lu baax li moom nga jël teg ko ne le pour tëj sa saison ci ku lay dégal lu bon mais nañu imaginer saxaaba yi nga xamante ridwanullahi alayhim seen xare badr ba muy am ban ban ban jamono la amoon ci weeru koor la wo dañoo woor dem def seen xare bi ay jigéen ñu ngi woon ci si seen xare yi xare bu ñu dem jigéen dañ fay nekk Umu Sulaym mi wax sànq dafa nekkoon ci xare bi ba dañ koo jam dañ koo jëm ci ginnaaw Anas ibnu Malik mooy doom ji dem na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax xool leen Umu lu muy def Umu Sulaym dafa ñëw ne leen mu ne yonent bi maa ngi xaar ba benn yéeféer laal ma ma jam ko te dañ koo jam ci ginnaaw ñoom ci koor gi lu ne lañ doon def lu ne doon def ñun nag suñu koor moom mooy caaxaan fooli te yaa ngi gis nag ci koor gi li ci gën a bon mooy nu ñuy nu ñuy dundee suñu koor théâtre yi nga xamante ñun ñu ngi tegal ci biir koor li ci gën a garaaw heure bi ñu koy teg mooy heure ndogu te mooy bi nga xamante ne dañ koy nangu ñaan heure nangu ñaan yi yow doo tal soxla yaa ngi am problème yu dul jeex yaa ngi am ay problème mu xaalis looy xëddee suba nga toog di seetaan théâtre ñaanoo borom bi subhanahu wa taala say soxla toog ci théâtre yoo xamante ne ñi sabooti diine théâtre yëpp yëpp yooyu ñu ngi ciy gis ndogu wala woor di dog sa koor di caaxaanee fo loolu kese la ban njëriñ la la amal koor gi tey kan moo la kooru tey jii ren gi est-ce que déwén fekk wóoru la kon koor gi lu ñu ko war a préparer mooy jaam borom bi subhanahu wa taala defal suñu bakkan surtout suñu bakkan yi nga xamante ni mooy li ñu gën a sonal ñun dañoo topp suñu naf si bakkan mais bu dee defar nañ ko ci avant koor gi mooy surtout chaban bi ñu woor ci préparer suñu boobu koor gi bu ñëwee day yomb suñu dañ koy jaamu doo bokk ci ñiy jëw ak ñay kaaw ak ñay dugul seen yoon nekkul maanaam sa jikko mooy rafet ba sa koor gi day rafet. mais yaa Seyda est loolu si koor gi rek lañ ko war a yamale parce que dañuy gis am na ñoo xamante ne comme genre bu koor gi di waaj a ñëw mun nañ préparer wu def loolu yëpp yu baax yi ngi fi wax yëpp mais après bu koor bi jàllee day dañ ko jëlaat tegaat ko moog koor gi ñooy ànd demandoo. mais avant koor gi rek daan wul préparer boppam kooku bu koor gi ñëwee 15 jours lay woor maanaam 15 jours yi par exemple moom mooy ne koor goo xamante ne bu dëgër la yeneen 15 jours yu mujj yi kooru falaa falaa la koy def naa. naa naa xiifal ànd ak nit ñi da ngay imaginer 30 jours yi nga xamante ni moom la la islam tegal pour nga war koo woor war nga nga war cee jaamu yàlla yow war nga programme de telle sorte que koor gi balaa muy génn di ci am lu bëri loo ciy jàngee ci diine war nga dem jàngi sa fiq war nga jàng nooy jullee yal nooy jàppee noy nooy wooree euh, farata nangam farata jàpp yi farata julli yi yooyu war nga ko jàng balaa koor gi di nga programme balaa koor gi di jeex lu ma mokkul woon ci alxuraan li ma mokkaloon dinaa ko muraajaa nafar ko ba mu gën a mokk li mokkul naa fexe mu mokk ne li temps temps xisib dinaa ko mokkal ci koor gi war nga ne dinaa jàng nangam ci ay xadis maanaam balaa koor gi di génn nga programme ci loo xamante ni sa sa sa diine dina gën a dëgër sa islam dina gën a baax su koor gi jàllee nga fas yéene ko gën a pratiquer surtout nag julli fajar gi nooy ndax koor gi à chaque fois da julli fajar di ngay yeewoo di jug fajar di xëdd di tëddaat di nga ju julli heure fajar ci waxtu bi mais bu koor gi passé tamit continuer ko mooy soxna Aminata wax est-ce que noonu ñun dañuy préparer suñu koor pour koor gi kese non non pour après koor gi la ñu gën koo lii parce que kenn xamul kañ la fan la naka la ko loolu dañ ko war a après koor gi nga xamante ni di nga julli fajar sa yoon lu mu nekkul doo ci dugg ndax bu koor jotee da gis kenn dugg lu su yoonam nekkul doo déglu musique doo dég doo nekk ci caaxaan bu koor gi passé la jeex na ku nekk sa bopp ngay tal kon bu koor gi passé da war a continuer loolu nga continuer jaamu yàlla gi waaye nga gën ko dëgëral gën ko dëgëral tamit surtout jigéen ñi ñu bàyyi di dugg lu su yoon nekkul. yaa Seyda euh, ñi nga xam ne nag dañuy toog di lido toute la journée ba pare dajale seen boru julli yi ñoom lan mooy seen àtte. waaw loolu moom yaakaar naa ne yab yàlla la ak yàq sa temps. parce que yow yaa ngi nekk ci koor gi di lido lido déjà am na ñu naan dafa xaraam yow li a naan dafa xaraam wala xaraamul doo ko bàyyi nga dem jaamu yàlla jàng sa alxuraan bëccëg bi temps bi nga nekk di foo noonu mat na nga dem jàng ci alxuraan koor pour jaamu yàlla du pour foo bu doon foo moo tax yàlla bind ñu ko danaan foo bi ak foo bi ak foo bi ngeen war a def mais ba muy indi weeru koor bañ na ko ba weeru koor ci la alquran waaju kon shahru quran la dañ cee war a jàng alquran jaamu ci yàlla mais jël say boru julli dajale ko dajale dajale ba fajar ba ge wala ba nga ndog ba pare nga disat encore nga wara fay bor koor yëpp war tamit naafila do naafila do julli say bor ko say say ko say julli julli yoy woruna na dañ ko nang wala ko nang parce que heure bi passé na wa inna salata kaanat ala muminina kitaaba mawquuta julli fam heure donc heure yooyu boo ko nga baye ba gée da ngay parax paraxé julli yaakaar naa bo boo yalla tamit say ki ñu parax paraxé sa ñaan rek ñu bañ ko nangu nañ waxante deug yàlla dang ko jox limu mu moom heure bi bu joté dam na nga julli ji nga baye fa li ngay def lepp lo mën def bu julli joté war nga ko baye waaye nag nekk ci lido gi foo geeg caaxaan wi werante nga fay def ak wax loo xamante amul benn chance dem julli ji jaamu yàlla daal yaakaar naa ne moom moo ko gën. macha allah yaa sayda am na solo mais lu ñu wax ci maanaam ñuy am boru koor ba koor gi ñëw te duñ ko fay. léegi lu ñuy wax ci nga xamante ne dañoo am seen boru koor yi mooy ñu fas yéene rek gaaw fay seen boru koor yi parce que tamit temps bu ñu leen mayoon trop 11 mois may nañ la ko pour nga def sa pour nga fay sa boru koor ngay nekk di naxasaa di topp seytaane ba bi fayoo ko te xam nañ ne mois Chaban bi 15 jours yu mujj waroo ko waroo ko waroo cee parce que baaxu sax ci sa santé ndax da ngay da ngay yeneen 30 jours donc ñu teel a fay suñu boru koor yi ñu bàyyi caaxaan bi tamit xam ne koor du caaxaan buy fexee bu ñu toogee ba koor fekkaat ñu ci nañu am yeneen sanction yu ñu ci fekk yoo xamante ni métti na trop ci ci nit ki pour mu def ko kon nañu fexee fas yéene gaaw fay suñu boru koor yi ñi ko fayoon gaaw fay te ñu bàyyi caaxaan bi. mais yaa Seyda lan mooy sa xalaat ci suukaru koor genre suñu su ñun ñi entre ñun ñi nga xamante ñoom ñoo ñi ngi si biir néegu sëy ñi nga xamante ni ñi ngi si biir néegu wala suñu mage wala suñu yaay ñi nga xamante ni ñoom koor amul dara lu ñu siy waajal lu dul li may jox sama goro li may jox sama lii juste par lan sama wujju pecco gi lii la koy jox dama koy jox lii pour mu pour mu pour ma gën am gën a am place moom genre ñoom niñ koy waajalee ak niñ ñu santee pour ñu waajalee ko parce que ñoom ñi koy waajalee si jënd ay vax ay vax genre comme dañ ko def comme genre ndawtal comprendre nga ak niñ koy waajalee est ce que ñoom noonu lañ ko war a waajalee par rapport ñun liñ ñu sant pour ñu waajalee ko ko. waaw soxna Mariam question bi am na solo lool te laaj nga ko tam fi nga ko war a laajee. mooy que ni jigéen ñi nu ñuy préparer koor ci ay euh, joxe euh, boru nu ñu koy waxee joxe peñe ndogu yeeg suukaru koor gi balaa ngay suukar sa koor di ko jox nit ñi nga suukar sa koor ci loo def ba pare. li loolu dara nekku ci parce que euh, jëflante ju baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa daf ko daf ko bëgg mooy nit ñi di jëflante jëflante bu baax di joxalante di demalante day tax relation yi gën a neex mais ak façon bi ñu koy defee parce que yow bu fekkee am nga ko. mën nga ko def ko waaye mënoo ko amoo ko bëgg a forcé ñu jox la ko par force te yow génnewu sa poche danga koy forcé jaral na sax nga tas sa sëy subhanallah lan moo la jaral yow ngay neexal nit ñi di di naqara sa borom kër ci ay suukaru koor et pourtant mën nga koy joxe bu fekkee am nga ko tey nit ki yaakaar naa ni boo jëloon tey paquetu meew sa jox ko war na sedd xolam nit koo xamante ni da nga koy forcé pour mu bëgg la yaakaar naa ni jaratu ko nit ki looy def rek na nekk lu sell loo nekk loo xamante ni islam gërëm na ko doo ci am benn naqar doo ci am benn coono doo ci am benn mer sa borom kër waaye itam yàlla dul ci mere parce que yaakaar naan ko koo xamante ni da ngay gis koo xamante ne da koy jaral mu dem lebi dem joxe bor fekk ko ci du xam fu mu koy fayee coono bi doo nelaw gudd coono fekk la ci nit daal boo def da ngay def loo mën boo tëddee nga nelaw nga noppal sa bopp noppal sa borom kër noppal seen waa kër parce que dara jaru ko fi ki lay bëgg na la bëgg na la bëgg te yàlla tax loko jox mu doylu ko mom tamit mu xamante li joxe bi du foosu ki ngi koy jox joxe bi du foosu tay bu amé ko xamante wala ay goro wala ay njëkke yo xamante jox nañ ko mais koku dolem dako am dako mën mu jox lako ki nga xamante ne mënu ko bu ko xolé wala nga ngi liwé ko mais su ko mënul mu ngi lay jox doole mu ngi lay jox nga lek mu ngi lay jox nga nan loolu yakarna c'est suffisant doyna bu ñuy nit ki daal da nga koy gërëm ci loo xamante ne yàlla gërëm na ko mais bu ko xeebee ci loo xamante ne du force da la koy jox rek ngir ngir bégal la donc su ko amul tamit nga comprendre ko xamante yow tamit bis dina ñëw doo ko am mhm. nit ki lu mën rek lay def macha allah ñuy kontaan bu baax ci thème yu am solo yi nga xamante ni développé nañ ko fii nii di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak topp mbokk yi lu jub ci waxtaan bi rek xamal ne xéewal ci borom bi subhanahu wa taala lu ci dëng rek ñu xamante ne suñu gàtt xam-xam la ak suñu matadi nekk ay jaam yoo xamante ni jaam yu xeebu lañ waaye fas yéene rek même bu dee benn xadis lañu jàng wala benn ay ñu fas yéene jàppale ko suñu mbokk jullit ñi ndax tabliix rek la ñu am mooy jottali xam-xam incha allah même bu fekkee lu tuuti la ñu fas yéene koo jëfee waaye tamit suñu mbokk yi jëfee ko ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu xéewal barkeel ñu te may tamit ñu jëfé li ñuy wax waaye ñeneen ñi koy déglu tamit yàlla may leen ay nopp yu baax yu dégg waxtaan bi in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum